surtout les auditeurs ñu yaakaar dem euh, ñu jël fi daal loo xam ne ay conseil la. Mhm. Euh, ñu bàyyi coow bi jéem a dugg ci vraiment ci combat bi. <laughs> en tout cas. combat moo ñu war en quoi qu'on puisse dire dinañ fi waxtaanee euh, tey jii euh, comme niñ ko xamee daañu waxtaanee politique daañu waxtaanee euh, lépp lu jël ci wàllum actualité daañu ci waxtaanee ak maître mais santé également daañu ci waxtaanee ak kii di docteur Babacar Niang et comme tous les vendredis je suis avec mes très chers chroniqueurs professeur Sanoussi Ba Mamadou Sanoussi Ba nuyu naa la. waaw nee na maa lay fay di la ziar di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp comme ni ma koy waxee toujours rek. heure bu àjjuma jotee ñu toog fii nu mbelaan di waxtaan mu am ñu toog seen kër di taataan ñuy ñaan yàlla nag musal sénégalais ci ñaar musal leen ci xaaraan ak ci saaraan ndax xaaraan ak saaraan moo yàq dëgg bi ñu ngi tàkkee c'est bon voilà merci beaucoup merci professeur alors ci noonu également daan ci euh, ànd ak euh, Omar Faye leeral askan wi Omar Faye yaa ngi leeral toujours waaw maa ngi lay nuyu di la ziar di ziar sénégalais yëpp di nuyu sunu invité yi sama nijaay di nuyu professeur te yaakaar nañ lépp lañ fi waxtaan rek. Mhm. pour intérêt askan wi la jërëjëf. am na solo Pape Makhtar nuyu naa la. fay naa la di la nuyu di nuyu maître laa Hadj Diouf di nuyu le professeur aussi. Mhm. di nuyu ñëpp ñi nga xamante ñi ngi ci plateau mais di nuyu waa Saint-Louis du Sénégal waa Colobane ak waa Fass. très bien alors euh, gis nañ ko dañuy commencer par lii di euh, coronavirus euh, parce que dañoo waxu deuxième vague kii di ministre de la santé et de l'action sociale confirmé ko lors de son face à face avec la presse deuxième vague coronavirus touche carrément l'Assemblée nationale parce que gis nañ ne que quand même benn député mu di kii di l'honorable député Marie-Louise Diouf ñàkk na ci bakkanam ñu ngi koy jaal waa Sénégal di ko jaal Assemblée nationale mais également famille wam coronavirus maître moo ko moo ko emporté euh, coronavirus ñu ngi wax ne que euh, am na ñu mu laal foofee ca ca ca assemblée nationale déjà lan lañ mën a jàpp ci hémicycle bi parce que gis nañ ne que changé nañ doxalin léegi plénière bi ñu ngi koy def également à huis clos lan lañ mën a jàpp ci loolu yëpp maître. man bu ma sañoon ñu commencé par docteur. non non juste par rapport ak l'Assemblée nationale. comme député. Euh, waaw mais nekkoon nga député <laughs> député yi mesure conservatoire mun nga ñu oh. expliquer ko si. mënuma ci wax dara député yi dañuy waxal seen bopp. <laughs> mais dafa mel bokkul dama mais dafa mel ni yaa ngi démissionné par rapport ak hmm. ak député du peuple bi nga bi nga waxoon. député assemblée ba bokkul député du peuple. <laughs> très <laughs> eh comme bëggoo ci prononcé wu euh, maître damay tourner rek ci ci ci docteur parce que euh, ñu ngi wax waxu euh, deuxième vague de coronavirus gis ne que ministère de l'intérieur déjà jël na ay par rapport ak port du masque par rapport également ak lii di rassemblement yu ñu interdire déjà c'est une bonne chose ah déjà ñu ñu ñu indiwaat mesures yooyu doom ñu ngi fi mais peut-être respecté wuñu ko woon lan lañ mën a jàpp ci xeexum coronavirus bi waaw ah, d' maa ngi leen di remercier de bu <laughs> fekkee man maa bi waxtaan bi wax débat bi mais euh, bon corona bi man sama dernier poste maa ngi ko def le vingt neuf novembre maa ngi leen deuxième vague bi ñëw na bon waaw c' est dommage nag ku ñu toll fu euh, lu day ni député di di gaañu ñuy soog a jël en ñuy soog a jël en xaw ma en considération li nga xam ne ñi nit ñiy liggéey ci ci corona bi ñoo ko ñoo ko njëkk a gis. kon déjà yàggoon nga alerté par rapport à cette deuxième vague. Ah, bien sûr cas yi bi ñu commencé augmenté. man le 29 novembre regardez sur Facebook j'ai j'ai donné une alerte le 29 tey on est le le 11 malheureusement il a fallu que lii dal député yi ñëw bon est-ce que nattu la. est-ce que aussi il fallait passer par là pour que nit ñi gën a conscient ci ci phénomène bi ki jeexul woon parce que parce que bi ñu nekkee un pour cent boobu la ñu bëggoon vraiment ñu mobiliser encore tous les moyens pour essayer de voir même ndax mënuñ ko radi euh, euh, radicalement euh, arrêté ko quoi mais malheureusement cas import yi arrêté li ma ci yokk d'après li nga wax nii sax masque bi ak attroupement bi man dolli naa ci nañu tëj aéroport bi ñu toj aéroport bi déjà aéroport bi comme <laughs> ah parce que ñu ngi féeteex ay ay dëkk yoo xam ne cinq heures moo ñu séparé dëkk yooyu ñu ngi tey am tey cinquante mille cas par jour waxuma la par par jour ñun amaguñu cinquante mille cas même par an si dix mois yi ñu def ñoom ñuy amee cinquante mille yaakaar bu ñu amee vingt mille cas ñu mën a passer Noël. mais mais mais aéroport quand même ñu ngi def ay test di tester ñii di dem ak di ñëw. <laughs> les faux vous êtes au courant qu'il y Oui, vous avez au courant qu'il y a des passes droits. Il y a des faux tests qui sont livrés, délivrés dans tous les pays. Absolument. Autant en Europe qu'au Sénégal. Hein? Rappelez-vous, même la première vague, c'était des cas importés. C'était des vacances de février où les gens sont partis faire du ski tranquillement. Hein? <laughs> Et on en a écopé les, les conséquences. donc je pense que war nañu <laughs> wàññi caaxaan bi caaxaan faaxee comme le disent les mbokku séeréer. <laughs> vraiment jug jublu ci kii bi jóg ci xam ne aussi j'ai l'impression ñu ngi avancer par étape nañu xaar mu gën a grave ñu wax nañu xaar mu gën a gravaat ñu wax. Euh, gis nga li ma leen wax. j'ai l'impression que ñu ngi avancer par euh, xaw ma par étape mais euh, à vue quoi. alors que j'ai bon ce qu'on a regretté encore c'est que même réunion bi amoon avec le président dans la première vague. où il a pris toutes les potentialités toutes les compétences réunir leen ñu wax ko li mu war a def moom mu am obligation décider les moyens qu'on doit développer pour euh, arrêter la première vague mais je pense une réunion encore plus urgente et plus profonde doit avoir lieu euh, ces que ñu xam où est-ce qu'on va je ne sais pas si vous êtes au courant que les centres qui euh, de la première de de la étape de la première vague sont fermés. Actuellement, vous avez que deux centres pour essayer de soigner les cas qu'on a. Mmh. Bon, <laughs> je ne <laughs> pour ne pas encore le kii les chiffres vous savez qu'on on que Dakar ah barke démb laa jóge Fouta euh, à 600 kilomètres a a même bu baax par rapport ak chiffres <laughs> mais kan la ñuy testé kan la ñuy testé ñun ma man yéen wala ñi am di mën a dem wala xam fan ma dul docteur nekk. mais ku xamul fan la docteur nekk c'est-à-dire que vous sortez de Thiès xamul la Thiès euh, vous savez pas moi j'ai eu un un jeune qui a vécu aux États-Unis qui est rentré dans ce village du Fouta mais mon ma famille tout le monde était couché je suis sûr qu'on avait le corona mais qu'est-ce que je pouvais faire à part boire mon mon paracétamol hein le village le plus proche où il y avait un dispensaire c'était à presque à 10 kilomètres de 10 kilomètres, il fallait qu'ils fassent 50 000 kilomètres pour la Ndjoum. Est-ce que Ndjoum, même, ils ont des bandelettes Est-ce qu'ils ont formé des gens pour faire les prélèvements Donc, vous imaginez ce, ce gars-là, ce prélèvement pour Moudjogefov, Nyéoubé Pasteur, New Testego, Boleko, petit chiffre <laughs> chiffre Soubeyi, ça, pour moi, le bouteille. Petit chiffre Soubeyi, encore. Donc, euh, côté Bob, les chiffres, je ne dis pas qu'ils sont faux, mais ils sont insuffisants. pas insuffisant xam naa dinañ ñëwaat ci yow wax waxu euh, euh, gestion de cette pandémie parce que euh, yaa ngi décelé quand même ay ay faits yoo xamante ne peut-être soxla nañu taxaw ci docteur mais damay tourner ci Pape Mactar Diallo très rapidement Pape Mactar par rapport à cette deuxième vague de coronavirus laata ñuy dem ci maître waxtaan waxu à l'actualité politique waaw non d' dañuy dañuy wax euh, sénégalais ñu dellu ci li nga xamante ni boobu ba tey seen TV da fii rester vigilant que Covid bi mi ngi si dëkk bi maintenant bu loolu jàllee dañuy wax aussi responsabilité état du Sénégal parce que aussi démb booy fàttali am na ministère euh, de l' intérieur benn communiqué bu mu génn. Mm. communiqué bi da génne di rappeler que ni arrêté bi nga xamante ni ñaari arrêté yi nga xamante ni dañu nekkoon en vigueur dañu continuer di nekk en vigueur parce que aussi bu nekkee arrêté yi nekk en vigueur di tere ay nan la préfet de Dakar di autoriser ay manifestation publiques te xam ni arrêté yi dañu nekk en vigueur di tere ay rassemblement beneen bi président Macky Sall aussi bien que ni arrêté bi dafa nekk en vigueur organiser na fi ay rassemblement dem na fi fi nga xamante ne mooy Kaolack bërki dem aussi partem ba ñuy def seen seen seen anniversaire def nañ ko alors que dañu ni arrêté bi dafa nekk en vigueur donc dafa am mbir yoo xamante ni aussi bu nekkee da nga bëgg nit ñi nga leen di sensibiliser. ñuy dégg en fait moom mooy relâchement bi ñu noté woon de part et d'autre autant les responsabilités partagées euh, état du Sénégal on a quand même constaté benn relâchement peut-être ci seen côté mais également population bi. non au-delà sax de relâchement c'est-à-dire ñoom dañu nekkoon di violer benn arrêté de façon de façon de parce que bu ñu la ñëwee bi dafa génn muy tere rassemblement sur la voie publique te au même moment nga dégg nit ñi dañuy dem def déclaration de marche ci préfet bi préfecture jox leen ay ay autorisation pour ñu mën a def seen manifestation ça pose problème soit ñaari mbir a a am préfet bi il n'était pas au courant que bu nekkee loolu kooku a jóge soit da koo mu def li nga xamante ne mooy li ko neex loolu aussi la dafa war a jóge ñaareel bi mooy président Macky Sall mi nga xamante ne moom moo jiite ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur xanaa doomu ne dafa ignorer arrêté boobu noonu ba ñuy organiser démb rek ci seen jam euh, ñaajo bale benn cérémonie boo xamante ne dañu rassembler ay monde mm. démb aussi defaan nañ benn manifestation ak feneen ak feneen ak feneen nit ñi boo leen di woo di leen interdire ay manifestation boo leen bëggee ñoom ñu wàññi ay manifestation ak ay rassemblement dafay commencer ci yow mi nga xamante ni yaa bind sa arrêté ni wàññi leen li ngeen xamante ni da ngeen ko doon def mais bu nekkee yow mi koy bind yaa koy njëkk violé nga toog ba mu neex la di rappeler que ni arrêté bi dafa nekk en vigueur alors que màggal jàll na gàmmu jàll na leneen ak leneen jàll na euh, ay manifestation yi nga xamante ne ay ressortissants guinéens euh, yu nekk au Sénégal jàll na fi te pourtant arrêté bi dafa nekkoon en vigueur d'après communiqué bi nga xamante ministre de l'intérieur da koo génn donc dafay poser problème bu nekkee aussi dañuy nekk ci réew moo xamante ne dañuy génn arrêté te kenn du ko respecté bu ñu xaar deuxième vague troisième vague quatrième vague parce que gis nga ñi nga xamante ne ñooy jiite bu nekkee ñoom ñooy demee di def lu leen neex en toute impunité ñeneen ñi askan bi aussi dañ siy